Euh, bala ñoo ñëw ci Ousmane Sonko mi fa yéene wuy ji suba xam naa ñu jox gars yi dig daje suba ak jàmm yow ak Abdou Top ngeen ànd ca tribunal bu dakaar xaar fa Ousmane Sonko ak la fa war a xew lépp président Macky Sall ñu ni ma France loolu la ñu wax. Hmm. journaliste yi tamit nee nañu dafay dem di justifier maanaam leeralal Macron daal ni ko ndaw sii fi ñëwoon. Hmm. moom kàccat ko ci yoonam nekku ci. loolu la journaliste yi ndax nee nañu dem tayam gii bokkul ci agenda wu président Macky Sall léegi nag lan nga jàpp ni moo war a tax président Macky Sall jël dem di maanaam leeral daal di ñëw ndaw si yàlla xëy na laalewu ci taqewu ci ndax bi mu ñëwee bu dul woon ak waa suñu mbokk ITV ci interview bi ñu defal ndaw si kenn du xam ne ndaw si ñëw na fi ndax RTS wane wuñ ko. waaw am na solo loolu de li ma si jàngat rek mooy bu fekkee ni kilifa dafa jógee France ñëw di ñëw Sénégal yaakaar naa war naa am leeral goo xamante ni war naa am si gouvernement bu Sénégal. Mhm. ba xam kii ñëw kan la ak kii dugg si réew mi kan la. lan la ñoo ko war a laaj wala ku ko war a laaj. non gouvernement bi laa war nañoo xam ni. Mhm. am na ku jóge bitim réew ponkal la. mi ngi dugg si si seenum réew. lan la fiy wut lan la fiy def. parce que dégg nga laaj bi. dégg laaj bee tax ma tontu la lool. waaw maam dafa am ndaw su jigéen soo xamante xuma politicien la xuma ponkal la France. moo jóge France ñëw fii ñuy xëccoo ñu doon jongante di laaj réewum France. ab opposant la. waaw Marie la jóge France ñëw fii. Mhm. dem nekk ndar. Mhm. di visiter. waaw fu mu dugg fa ànd ak ah. président Macky Sall ni yëgu ko yoonam nekku ci. Hmm. warut a doxee noonu. non est-ce que yëgu ko yoonam nekku ci la wax. loolu nga ma wax di. déedéet ma ngi ici ici naan. <laughs> moo tax ma ngi ma ngi ma ngi ma ngi leeral nit. Ah. yoonam nekku maanaam journal yi dañoo bind ni daal. Ah. dem na di leeral li. Hmm. dikku Marie Le Pen fii ci biir réew mi. Hmm. am ñu ne bi mu ñëwoon gi sax am ñu ne kii nee na Malick Thiandoum wax na ni sax. président Sall bëgg ko woon a recevoir. waaw waaw léegi moo tax ñu ne. mais est-ce na muy dem France. Ah, baat bi nga wax ni moom lay waxi France baat boobu ban la. maanaam mi ngi justifié maanaam di leeral day maanaam di leeral lii la fi doon wut ak c'est-à-dire est-ce que maa ko fi bi ma ko fi invité lii la demee. Hmm. maanaam journal loolu la wax ni ñu est-ce que na dem boobu nga làkk li muy firi mooy yoonam nekku ci. loolu lay firi d'accord kon yow ñëwam gi yoonam nekk fii waaye ñëwam gi nag yoonam dafay war a nekk dafa waroon a am bis bu muy ñëw lan ñu xam gouvernement bi xam ne kii kat mi ngi dugg si si réew mi lii ko fi tax a jóg famille visité ñu xam gouvernement kii ba fa nekk euh, préfet ba fa nekk wala gouverneur ba fa nekk xam kii lan lay wut ndar li muy visité lan la fay samp seerliir wala ah, kon moom jot naa dem ma nga wan ndar fa la dal est-ce que fa la dal waaw est que man yooyu yëpp xam naa ko mais dafa war a dafa dafa dañoo war a xam lan la fi wut. ba pare doog a dem leeral yi ak yi tey loolu daal en tout cas mi ngi noonu président Macky Sall ñu ngi koy ndokkeel si bitim réew googu. jaajëf alaaji hmm. journal yi de loolu la ñu xëy dégtal ñu ko ci suñuy nopp man boo ko déggee tey sax damaa tiit mais daal ñu bari nee nañu de waa ji jël na avion dem France ngir leeral ñëw Marie Le <laughs> dégg naa am ñu naan non le deux bi lay daw quoi am na ñu koy wax. le deux kay hmm. kay non non non kay président Macky Sall nee na amul lu muy tiital di ragalatuma dara. <laughs> kay kay ah. nee nañ kay ah. ne am na ñu naan moom le deux bi lay daw waaye yaakaaruma loolu quoi parce que le deux bi. defe naa ni importance bi ko ay mambay ñaa dox. mba mbay jaa ko jox quoi parce que mais jàpp naa ni le deux yi moom euh, loolu moom hmm. jarut xalaat quoi voilà léegi hmm. leneen li nga xamante ni bi moom moo ci ne muy dem di justifier journal bi bu dee président dafa dem pour justifier tooñ nañu tooñ nañu waaw parce que dañ koo fal Sénégal di réew mu am indépendance nga xamante ni bi kat dafa war a jël ay décision ku ko neex lay xaritool ku ko neexut du xaritoog moom nu ko neex la war a doxalee amul benn réew bu ko war a dicté ci lenn bu dee journal ba day fen li mu wax du dëgg président war na leen yóbbu ci yoon. vraiment parce que yenn yi yabaate la. Hmm. est-ce que comprendre bi ñëwee ñu koy non parce que dafa am non ndaw si bi mu ñëw. bi ndaw si noonu ndaw si nëbbuñu ko. moom da nga naan gise gi xam nga Malick Thiandoum dama ko seetaan mu ne euh, président Macky Sall nee na du ko recevoir. loolu la loolu dégg naa ko. xabaar de vidéo mi xibaaru làmb la am. xibaaru mbirum kii xamu ci xibaaru làmb la am parce que mi ngi noonu wax ko. ñu xëy ñu ne président recevoir na ko comprendre nga. Mm. donc pareen saay moo tax da ngay wax loo xamante ni bi maîtriser woo fi yëf yi nekk yenn gars yi wax la leen rek nga xëy rek dóor ko après bi mu jamee ITV après boobu la dëggal ni gisante na ak moom. du dëgg. Mm. ci la wax nit gisante ne ak euh, président. Mm-hmm. waaw léegi ñun lu ñu ci doon nëbbu solo yi nga xam ne lu yëgaan ñoom ñoo ko daan njëkk a bind RTS it ak ana seeni caméra wala dafa dañoo am problème caméra jour boobu ba filmé wuñ ko donc loolu lépp war nañ ñu ko <laughs> war a kat président daan def léegi rek luñ ciy làq li ciy làq nag boo deful ndànk nag loolu mën naa jox raison sax journal yi ne justifié parce que dem di justifié ji daal man jàpp naa ñun daal li ma bëgg ma sony bu président Sénégal daal yëg ni moo jiite réew mi yëg ni tamit beneen réew waru ko yilif ni réew yëpp amee seen sañ-sañ Macron tey du dalal kenn bu dalaloon Macron bu dalaloon Ousmane Sonko. du xëy naan président naan ko non c'est nii la demeek naag nële yaa ngi dégg ah. du ko ko wax bi fi France 24 dalalee Ousmane Sonko new ñu naqari na président Sall waaw ba woote na France di ko mittilu waaw mën na ko naqari bu wootee di ko lu kan la koy woo kan la woo parce que wóolu euh, kii Macron. sa diggante yàlla Macron la ah Macron mooy naataangoom bi. Macron mooy naataangoom. Macron président la président Macky Sall président. wala journaliste ba la woo. Ah? Macron moo war a ñëw Sénégal. kan la woo. ah non nee nañ daal woote na France. waaw le fait que le fait que xam nga France ñoom. bi ñuy def li ñuy def yëgaluñ ko ko. Ah. le fait que yëgaluñ ko ko. mooy wane ni comme kii tàgguwu la. Hmm. yëgaluñ la ko ñëw nañ def nañ seen interview jàll na. Hmm. yaa ngi dégg est-ce que kan moo xam nga ñiy wax naan naqarlu nañ ko mën nañoo sax nekk ay tappalekat ah. waaw mën naa am sax bon ba noppi mën nañ ko woo sax wax ko leneen bu naan non président naqaru xam nga man réew mi moom sooy ah. dafa doy waar d'accord mhm. d' accord jërëjëf kon ci kanam incha allah gannaaw euh, point bi daañu def benn pause bu ndaw tegalaat leen lenn ci ay jumtuwaay yoo xam ni defaroon nañ ko euh, bu ko defee ñu daal di waajal nag recevoir Cheikh ñas ak Cheikh baara dara du leen ci ump nag incha allah daañu ko def euh, direct Assane. Hmm. suba ak jàmm la deux bu ànd ak dogalu borom bi ci la ñu war a euh, daal xool diggante Mame Mbaye ak Ousmane Sonko am na ci journaliste yi sax ñu wax lu doy waar nee nañu. Hmm. même suba bu dee dafa dem donte ne dañ ko condamné donte ni quatre la donte ni deux semaines la donte ni un mois la. Hmm. Ousmane moom dootu mën a bokk ci li nga xam ne moom mooy élection yi ñu jëm. Hmm. maanaam dossier Ousmane Adji Sarr bi sax mën na fee jaare naax saay. noo gisee suba. waaw ah, suba de xanaa ñaan yàlla suñu borom yóbbu ñu seeg jàmm ñu fekk ko te tal ko. Euh, ba xam nag euh, Ousmane dana wuy ji wala du wuy ji bu demee lam fay jëlee moom maam Mbaye après bu boobaa buñ ko kii pare rek. Sénégal amoo ci ay révélation loo fi yëgaat ci ay xabaar ndax dana dem ak du dem. non yooyu moom ëpp ma ko si waaye daal li ma si mën a xam mooy. ana sa drone yi xanaa dañoo liggéeyul. non drone yi dañoo nekkoon fan yi si lii. fii laa leen yebaloon ñuy saytu ni muy demee. li ma si mën a wax daal mooy waruñu woon a wax naan du bokk élection dana bokk élection dañoo waroon a wax daal nañ xool rek nañ bàyyi wànne nag ki bëtam mhm. ba xam la la fa tëkkee bu bu ñu àttee nag ba noppi li noppi nag ñu doog a xalaat ne ah ginnaaw àtte nañ ko si lii kat mënut a bokk si lii mënut a bokk sa lee mais ko pelantee na ko leer ni bokk si élection yi mënut a bokk boobaa nit ñi dinañ xam ne ñii kat li leen intéressé mooy Ousmane Sonko bu mu bokk si élection yi ndax bu si bokkee mën nañoo gagné buñ bu ñu def loolu si bopp nit ñi dañoo waroon na sax fàtte fàttelu élection yi wala fàtte fàttelu bokk gi moom daal di jël tooñ teg ni tooñ gi daal lañu bëgg mu leer. Mhm. bañ a def ay élection bañ a wax gañe bañ a wax nangam bañ a wax ay kër mais ñu jël tooñ teg ni ah Ousmane kat dafa tooñ Mame Mbaye Niang na leen yoon àtte. Mhm. point d'accord buñ ko waxoon xelu kenn du jaxasoo. d'accord Alaaji noo gisee le deux bi suba ndax wuy jàpp nga ne Ousmane Sonko dana wuy ji ndax jàpp nga bu wuy ji am na conséquence bu mën a am ci mbir yi. waaw conséquence bu mu mën a am moom euh, Ousmane Sonko du bokk ci élection yi moom. Hmm. Euh, yaakaaruma ne ñu ngi koy xalaat. Hmm. waaw ah gars yi loolu mooy seen combat de. waaw même bu dee seen combat. <laughs> Ah, waaw hmm. dafa am réalité terrain. Euh. gis nga pareen saay hmm. euh, li naan waxe waxe du defe defe. ndawa danaan waxe waxe du defe defe. defe dëgg la. nit gi mën nay wax de. waaye def. la naka jafe. donte nag euh, lancé nañ ay sonde ak affaire yooyu yëpp di jéem a wax nit ñi comme genre euh, Moussa Diakhaté gis naa ko <laughs> dafa ko yërëm moom moom ah mooy juge ba boobu àtte na ba pare mm. <laughs> Moussa Diakhaté dégg naa ko boobu moom àtte na ba pare mm-hmm. donc mais euh, nañu xam ni daal mm-hmm. réew mi moom mm-hmm. am nañ candidat de mm. waaw xam nga loolu moom da nga koy xam te réew mi am na candidat wala na candidat du Sénégal non c'est réew mi ci seen jëm boobu xam nga sooy bu ñu naxante xam nga pareen saa yi ñeneen ñëpp ay figurant lañ fii bu gars yi di wax xam nga ni yeneen parti président boobu li mu waxoon def na fexe na ba opposition bi moom nasax na mais bu foofu jàllul Malick Malick ak Géeja waay waaw mais dama ne dama ne la fexe nañ ba opposition bi président moom fexe na ba opposition bi nasax waaw hmm. opposition politiciens yi. Karim a ngi fi Khalifa a ngi fi. yaa ngi dégg opposition politiciens yi. fexe na ba na saxal leen. moom moom loolu moom xam naa dafa nekkoon seen biir moo tax mu comprendre nu mu leen dina saxale waaye opposition bi juddu hmm. te nag opposition bi judd façon opposition bi judd mooy bi gën ci senegal waaw mooy opposition boo xamante ne euh, léegi nit ñi dafa am léegi lu ñuy jaayoo. maanaam nekk naa ci bërëb ba jóge fa musumaa sàcc nekk naa ci bërëb ba jóge fa musumaa def li léegi nit ñi loolu la ñuy jaayoo léegi booboo xew léegi yow boo yoree xaalis sax dañ naan foo ko jëlee ban xaalis nga yor kii lu ko war a may xaalis maanaam dañ lay càmbar mm-hmm. loolu lu baax la bu ñu demee ba léegi réew mi nga xamante ne bi son bu nit yoree xaalis ñu ne waaw kii kat di ñëw di laaj di doxalee nii di joxe xaalis moom kii laaj sax di joxe xaalis sax nit ñi dootu dootuñu la loolu gëm mm-hmm. parce que dañ naan kii comme policiers yu njëkk yee la d'accord moo tax yenn politiciens yi nga xamante ne bii ñu ngi koy def nañu wàññi loolu. parce que peneen saay nit ki mën nga ñëw jox ko dix millions. mu am problème sa dix millions yi mën na jënd ay quelques moto pompe fekk ne am na koo xam ne su waxee rek problème ba réglé te ba noppi nekk opposition kàddu gi moo ëpp mën na ëpp doole. jëf yi xaalis. peneen saay kàddu. léegi day ëpp doole léegi suba Ousmane Sonko ndax day wuy ji. wala du wuy ji. walaawu taalaa axlam. ah déedéet loolu pronostic la xam nga xam nga loolu. du ma pronostic ci loo xam ne mais dégg nga Ousmane ay yoon loo xamante ne bi. est-ce que jàpp nga ah. moom dafa am ak nit. waaw xam nga dafa am lante ak nit. waaw dafa am lante ak nit. léegi ndax day dem wala du dem yow sa hmm. xalaat lan la la jox ci discours Ousmane Sonko yi ngay. waaw mais xam nga tey temps yi boo gisee booy ñu ngi partagé euh, fi nga xam ne fa la jëlee source bi gars yi defe naa ni yow mi Assane partagé ko ma ko. Hmm. ba ci yéenekaay yi ba ci yéenekaay yi wax nañ ko hmm. comprendre nga revue de presse nañ wane problème bi nga xam ne moom la Ousmane Sonko wax kon diffusion fausse nouvelle bi ñuy wax donc loolu mu ne parce que loo xam ne bi te journaux yi bind nañ ko eh, nga gis ni liir na ko moom it ci benn kii boo xamante ni bi gis postel nañ la ko donc am na yoo xamante ni bi am na fu mu jógee léegi ñooñu lañ war a lijjanti ci fu mu jógee mais loolu nekkul lu mu sos du lu mu créé d'accord wala déet. d'accord donc euh, bu fekkee ne li nga xam ne moom i lapsus bi nga xam ne moom la amoon waroon a wax kii juum ci kii bi wax beneen kii. Mhm. donc loolu reconnaître woon na ko. d'accord voilà.